man si ginnaawam laa nekk. waaw man ni ñu koy gis nii si ginnaawam laa nekk. waaw parce que mu ngi def ay mu ngi def lu am solo biir Pikine. waaw tey suñu gox bi fi mu toll nii dañoo war a wax alhamdulilahi rabbil alamin parce que lépp changé na. ñun ñëpp ñu ngi si jàmm. te lii lekk la bëggoon. waaw te xam naa ni. 6 points xaw ma xaw ma 14 points dinañ ko am. Malaw Seras dina daan si kàttanu yàlla Jacob dina daan. ñun xam nañu bébé Saloum. bébé ah. waaw waaw man xam naa ko bu baax. parce que non baba Saloum su ma néegu yaay la doon fanaan. sama kër yaay caaro yi. su may suñu fi foofu la yeewoo nii man fa laay yeewoo sama yaay mu ngi fa. sama yaay mu ngi caaro yi mu ngi fa sama doom mu ngi fa Aliou Seras mu ngi fa. ma ne ma ko ma koy wax rek am na lu ma dégg nag sama nopp. Mm. na kii sama rakk la. Mm. yaa ngi may da gis ka bu doon bëri mbër boo xamante ne ñoo bokk ndey ak baay dëkk Pikine dëkk Thiaroye te dëkkoo Pikine kii laay faral damaa bëgg mu dégg ko moo tax ma jël tiset bu mag defal ko seex sama doom foofu tisetu Jacob bu seer laa ko defaral. tiset boobu ko gisee da ko war a nangu. non nan la koy nangoo. titre foncier la fa sama yaay dama koy bëgg wax ko mu dégg ko. damaa bëgg mu dégg ko quoi mu ñu jël seex sama doom. ñu tegee ko nële nga xam ne ni kii baayam la. dégg nga fii la sama doom yaroo loolu laay moo tax ma profité gaaw ñëw hmm. dégg nga ni ma ko defaloon contre Ama solal sama doom tisatu Ama noonu laa ko defaatee tisat bu seer laa jëndal seer Jacob si ginnaaw Jacob si kanam mu koy sol di ko doxantuwaale ci biir koñ bi boobu te dara du xew ah, kii papam la am na droit foral ko jaruñu koy dàq ay entraînement ak yu kenn xamul dégg nga foofu la dëkk foofu la juddoo foofu la màggee maamam fa la dëkk fa la am kër ni ma amee ni ma amee fii kër sama yaay foofu la amee kër lii làmb la dafay jeex mm-hmm. Aliou Seras ñoo bokk ndey ak baay combat bi moo tax mu quitté nekk entraîneur foofu la woon écrit ci Mboori. combat Jacob bii moo tax mu quitté fa. ñu écarté ko ñu écarté ko dàq ko. dëkk. combat bi moo tax combat Jacob bi coow bu mag la fa am. sa mm-hmm. kii rakam la. rakam la Aliou Seras day toog presque at du gis Jacob bii mu ngi nii hmm. du ma bàyyi ma fen billaahi wallaahi watalaay hmm. moo tax combat bi lu ma ci mën dinaa ko si def pour ki am ndam bi billaahi wal kitaab combat bi règlement de compte lu ma ci lu ma ci mën dinaa ko def lu leer laa lay wax hmm. Aliou Seras su ma rakk la lan a xaaral di jaas def ci combat lépp loo doon gis ci ma doon taxawaaye Pikine tey ah. dinaa ko def ci combat bi surtout bu maalaw bi surtout maalaw parce que maalaw tey Pikine da koo war a faj ku nekk taxaw la ku xool ni muy taxawoo Ama rek kon Pikine waa képp koo xam ne da ngaa bëgg Ama rek war ngaa jàppale Malaw Seyra. dëgg la ngir jëmee gunge ko pour mu am ndam. waaw maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla suturaal may ko ndam. parce que nit ku baax la. waaw di woo waa Pikine yëpp nañ ñëw tekki loxo. jàppale ko ci billet ku mel ni Timbo ah Thierno moo du Gueye sama xarit xam nga maa ngi koy woo Isaka Diop. waa Pikine yëpp Cheikh Lobaat Fall maa ngi lay woo nga ñëw jàppale ko bu baax xam nga Pape Abdou Cissé Philippe Kenny képp ku si sama nit maa ngi lay ñaan gaaw nga ñëw contacter Jacob nga jàppale ko ci ay billets jàppale ko bu baax a baax a baax yàlla may ko ndam. jërëjëf waaw ñu ngi nuyu ñu ngi nuyu ci. boole li ma ci boole mooy ci laa bokk. ndax kii euh, boo gisee mu nekk suma xarit. Euh, mbër bu demee ba am ki nga xam ne ngay bëre moom ak suma frère ak Zibal ñooy takk suma ngemm muy papaam yàlla na ko yàlla xaraajal barki sëriñ Modou Abib Mbacke mosuma julli te du ma ñaanal papa Bal dem moo ci mujj ba ma demee ci almeeri maak ama fa na nekkoon di siyaare mm-hmm. kon kii papaam si ñu ma def champion da cee bokk ba pare bëggoon ma mm-hmm. wóolu ma mbapat sax bu amoon day wax baabooy laay jiital ndax mooy gaynde moom man la féetewoo moom loolu moom ñëpp xam nañ ko man la féetewoo même bu Musaana tàng fii ci kër gi bu ma day rus day dem yoon loolu nag moom mii da koo def ci man cër la ma jox respect fonk kon bésam suñu bés la suñu doom la suñu bés la ñoo ma bi te amul dara nak lu ñu ragal ci bés bi hmm? barki Serigne Touba Mbaye bés bi lu mu leen jaral non lu amul wax xam nga àdduna jarul wax lu am solo mooy jëf te lu ñu bëggoon ci moom mooy def na ko mooy na am na yar xam nga àdduna du jaay xët-xët du dara àdduna yar la ku la mag ëpp lay sagar mhm. mais moom Pikine gépp mën nañ ko seedeel ni xale bu am yar la na ay fameem respecté na jàmbu respecté na keneen li des nag mooy mooy li ma waxoon barki démb rek ñun Pikine ñoo bokk ndey bokk bàyyi euh, ku fi jiite tey yàlla teg ko fi mu nekk seen mag mooy Eumeu Sène Eumeu Sène Boy Niang fi nekk Ama Baldé mhm. ñu am nag ñeenti combat ci juróom je pense juróom soq yaakaar naa ne ku ko xool semaine bi xam ni liggéey na teg na combat bi fu wóor mu ngi liggéey di entraîné lamb ñaan yëpp dëgg la mais le seul le travail qui paye c'est très important liggéey zambala hmm. entraîné na préparé na ordinateur ordinateur préparé na mu ngi entraîné maalaw seras maalaw seras kooku moom sama sama maalaw la waaw mu ngi entraîné bu baax mu ngi préparé lu may xamal Pikine mooy li rek mo wax xalé bu amé yar am teggin rek ñëpp ñëw japp ci té Pikine ñoo bokk tay bokk bay dama bëgg ñu def ni Jacob nit da ngay jox sa kilifa cër xamni ku la ñëk ci dara gën la ci xam magum lamb mën na tok fele nga nekk ci biir estade ba mu gis li nga xamni ne mën na ko régler ci biir kërëm ta do ko xam mais mom bésam jaral na lu ne duñ ko wax dara nak suñu doom mais mom lima gëna impressionné si yaram kon niko taxaw ci bés lu raw taxaw sax nga wax xam nga wax amul solo man kuma xam-xam ni lu may def rek ci sutura la koy def buguma wax bu bari tay ji mom rek moma jaral ma tok ni di wax ni ci point de presse man xam media sax ma ci sawaruma ci non mais dama lay xamal ni Pikine gep dañu wara genn jappale parce que ñoy doon grand champion yi ëllëg te mérité nañ ko lima leen xamal nak moy lamb léegi du histoire du xex du agression dede, nañu arrêté lolu dañuy dem yobbu suñu mbeur ci fulla ak fayda mu daan ci jamm ak salam ñibi si waaw li may wax dal moy nañu boole bokk nday bokk bay respecté taw yaakar na ni kuko xol ni sama dom ji xamni ne liggéey te rek ci am solo di remercier nak Pape sar remercier le euh, Mortala hmm. parce que xam nga àdduna du alal nit mën na la jàppale fekk du alal hmm. tay Mortala wax na wax ji nga c'est très important hmm. xale yi dañ leen war a jàppale autorité yu nekk Pikine nanu arrêté bu politique amee rek nañuy bu tànk politique nu duñu dimbali nit ñi kenn du leen gis c'est faux parce que jeunesse bi nekk fii jeunesse tey jii boo xool Sénégal jeunesse bi fi ëpp doole jeunesse lamb làmb lamb moo fi ëpp doole kon làmb tey ñëpp ko war a jàppale bés bi nag bés bu rëy la ni ñaanal yàlla yàlla na ci yàlla def jàmm def ci sutura ak xéwal ba bés bi àgg si jàmm waaw loolu rek amoon li wax wax Pikine yëpp nañ ñëw ziar si mon fils ne peut rien les uns les waaw di woo Ndiaga Euro moom suñu papa la Ndiaga Euro Ndiaga Euro ñu ngi koy woo bu baax a baax a baax ak Waly Seck ñoom Del Pero Aline Fall waaw waa Ouest bi yëpp